mbokki internet yi mbokki Salam 7 TV foo waay mën a ne ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu siwaat nañ rek ci seen jotaay bii ñu baaxoo ànd ak yéen saa su ne mu di nuuru nujum mu di xam-xamu biddiw wàllu astrologie ñu leen ci leeralal biddiw yi sarax yi horoscope yi couleur yi tabia yi tey ñi dikkal leen ci horoscope bi ñuy wax vierge arab di ko wax al azra dikkoon leen ci horoscope yu bari ñu ngi lay ñaan su fekkente ne gan nga ci scène bi rek nga dem playlist dem horoscope di nga fa fekk mbooleem vidéo yi ñu def ci wàllu horoscope wala wàllu astrologie incha allahu rabbi di nga gën a comprendre bu baax a baax vierge ki nga xam ne vierge la nit ku am dara dalay doon foo ko fekk waaye ay mbiram dafay dox di taxaw moom boroom vierge maanaam par exemple tey bu doon def commerce nekk ak ay moroomam ngeen bokk benn produit bu ngeen di jaay bokk prix bu ngeen di jaay la wala sax yow miy jaay yow borom verse nga gën koo yombule kii man di doxle tout le temps yow ngay doxle rek léegi nga jékki-jékki taxaw say mbir taxaw lool ba jaaxal la loolu dafay yomb lool borom verse nit ku am sens lay doon nag bu ngeen àndoon di sàkku ci dara yow man nga ñàkk moom mu am waaye sëy di tas daf koy yomb lool bu dee jigéen maanaam même bu dee xale bu jigéen sax bu toll ci wàllu farantu da ngay gis ne copain bu mu am jafe-jafe daf ci yomb lool bu dee góor it noonu feebaram nag bu koy faju na ko faju ci wàllu rab maanaam wàllu rab goo xam ne lu ci ëpp ci ndono la koy jële bu koy faju rek na ko faju loolu feebaram lu ci ëpp loolu lay doon jafe-jafeem nag lu ci ëpp <clears throat> bu nekkee gone nii du ko gis waaye mi ngi tàmbalee ci fukki at ak juróom-ñaar jëm kaw lu ci ëpp fi tàmbalee dund ay problème lu cëpp ci la koy tàmbalee dund waaye nag yàlla da koy aar ci ay noonam maanaam borom vierge moom noonam mën na di ko fexeel pendant des années te du ko mënal dara saraxam nag mën na wut dugub benn kilo wala ñett wala juróom-ñaar mu di ko sarxe bisub àllarba eh, su yàlla dogaloon nag mu tukki ak ñëwam du gaaw moom borom vierge lu ci ëpp ak ñëwam du gaaw même su demoon amut sax dafay siisu pour mu ñëw du yomb incha allahu rabbi loolu mooy ab tënk rek ci horoscope bi nga xam ne mooy vierge donte waxoon naa ne horoscope bu nekk duma leeral melo yi lépp lépp ndax am na lu tax ndax am na ci horoscope yoo xam ne li muy wax dafay doy waar te boo xoolee ci jëmmi nit ki danga koy gis fois nga gis nit ku violent ku soxor wala nit koo xam ne maanaam du waxkatu dëgg foo ko fekk fitna ak musiba rek lay def yooyu yëpp horoscope yi daf koy junj di ko wax moo tax yooyu yëpp dañ koy tëb duñ ko wax incha allahu rabbi di leen tàggu foofu rek di leen ñaanal jàmm ak salaam ak xéewal ak sutura yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu